leen la fa gën a fës nag moo di tàggoo bi nga xamante ne nii def na ko fa ci kanamu ay naatàngoom président Macky Sall di xamle ci biir yéenekaay bi ne gëm naa ne ki may uutu ëllëg tamit taxawaay bii ma am bu ko raw lay am te maa ngi sàkku ci yéen tamit ngeen ubbil ko seeni buntu ndax li wér moo di fekk juróomi weer bu ñu amaatee réunion tamit beneen président de la république ngeen di gis ndax Sénégal day am élection te bokkuma ca moom président Macky Sall dellusiwaat ci coup d'état yi ñuy gis ci biir Afrique mu ñaawlu li ni mel ba noppi nag jàpp ne jot nañu daal di réformer nag suñu institution yi ndax nag lii raam ci ñag bi la jëm les ci déclaration bi nga xamante ni président Macky Sall def na ko di dernière déclaration ci Nations Unies guru Marème Faye Sall dem na fa nag bay delloo njukkal président Senghor fàttaliku ko waaye tamit fàttaliku liggéeyam jaajëfal leen ba noppi nag daal leen di tàggu yéenekaay bi des waat ci déclaration tàggoo bi nga xam ne président Macky Sall def na ko fa ne gannaaw fukki fukki at ak ñaar yi ma nekk ci bopp nguurug Sénégal le 2 avril bii di ñëw dinaa def passation de service jébbal lenge yi beneen président de la république waaye daal maa ngi sàkku ngeen accueillir ki ma nar a remplacer en tant que président de la république du Sénégal ngeen ubbil ko seeni buntu ndax relation yi gën a rafet président Macky Sall yemul ci loolu ndaxte mu ngi xamle ne amoon naa fierté loolu nag représenté Sénégal fii ci Nations Unies li may naa la wax turam a ngay riir ci biir benn bokk yaakaar responsable yi di dóorantey bopp ndaxte bu baax bi la ba ci kaawu Abdoulaye Daouda Diallo nga xam ne fan yële ñu génn def na déclaration de soutien waaye nag président Macky Sall la ko jox mën na la lu ëpp fanweeri minute laa la wax def nañu cérémonie bi te déggu fa turu Amadou Ba et pourtant moom mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar li ne mel nag tax na yéenekaay bi dalal Abdou Mbow muy xam ne am na ñoo xam ne yàq dong moo leen tax a jóg waaye ku déglu déclaration Abdoulaye Daouda Diallo bi xam ne jox na soutien nag Amadou Ba le fait mu ne dañoo bëgg victoire rek ci mooy day soutien retenir sunu candidat moom Abdou Mbow nag def révélation bu rëy ci biir yéenekaay bi di xam le ni fi ak fan yi néew di ngeen gis Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba toog waxtaan ba noppi nag fësal ko Sud Quotidien ne problème bi problème bi mu ngi ci candidat bi Amadou Ba est dina mën a gagner dès le premier tour na ci élection présidentielle yi di ñëw en bu ne sukkandikoo ci biir yéenekaay bi dana ci am ay jafe-jafe ndax base bi nga xam ne ñoo ko war fi mu toll nii dafa tas confiance ñu waroon a am ci moom nekk biir APR ko ay naataangoom du mooyu lii mën na ko indil ay jafe-jafe nag ci élection présidentielle yi di ñëw donte am na appareil bi waaye pour mu exploiter ko mooy problème l'observateur na Amadou Ba kay mu ngay jéngu mën na la ni ki barki démb rek jiite na benn réunion boo xam ne responsable benn bokk yaakaar yépp fa teewoon Amadou Ba jël ay responsabilité am ba noppi fas yéene wàcc ci terrain bi def contact direct ak population bi li ni mel nag plan d'action bi tëral nañ ko yéenekaay bi na bokk na ca ponk bañ waxtaanee tam fexe la tuuba yenn kàngam yi nga xam ne ñu ngi woon ci benn bokk yaakaar dellusiwaat moom Amadou Ba objectif am mooy balaa yàgg Alioune Sarr dellusiwaat Mary Teuw Niane dellusiwaat Aly Ngouille Ndiaye Gueye dellu siwaat Mame Boye Diao dellu siwaat ak yeneen responsable Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ci diggante bi rek génn nañ ci coalition bi nekk ci seen yoon ñoom ñëpp ñu dellu siwaat ci biir coalition bi dooleel Amadou Ba lii mooy seen objectif fi mu nii na bokk na ci plan d'action Amadou Ba mooy mu def contact direct nag ak population bi te opération bi ni mel na tey jii lay tàmbale ci diwaanu Tivaouane Meouane Pire te noonu lay continuer nag ci yeneen localité yi Vox po ne bombe à retardement bi ci boppam fi mu toll nii lañ war na yëngutuwaat Sénégal Alioune Tine di ndaxte nag ci biir yéenekaay bi tey xamle ne il faut que président Macky Sall moom mi ne mooy njiitu réew mi jël ay responsabilités ay buntam indi waxtaan woo xamante ne nii ñeelul kenn ku dul Ousmane Sonko ñu fexe ba régler problème am jàmm mën a dellusiwaat ci Sénégal lu ko may gis nga lii di raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jugee Alioune Tine di xamle ci biir yéenekaay bi ne moom président Macky Sall nag moo war a ànd ak woyof xam ne responsabilité jamono jii mooy mu nekk modérateur régulateur kilifa goo xamante ni day boole lépp muñ ko di baale di jéggale tey jëlale lii la ñuy xaar ci moom

candidat ci élection présidentielle yi di ñëw waaye tamit ñu dellusiwaat parti politique am bii di Pastef ci langue politique gi ngir mu mën a compétir ci élection présidentielle yi di ñëw en ñoom waa Pastef nag yéenekaay bi mu ngi xabal ni sonn nañu lool laa la wax ba fu sonn yem coow lu ñëw rek fi mu ñu dégg ci seen tur yéenekaay bi dellusiwaat ci coowal cocktail molotov bi ñuy wax naan am na benn kër bu dend ak lycée de la Fosse fekk nañ yi moom Ousmane Fall fi mu toll nii moom la takk der yi di wër ndax jàpp nañ ne moom mooy cerveau bi en tout cas yéeni kaay bi des waat na ci cerveau parti démocratique sénégalais bii nga xam ne puusul paasul yëngatuwul benn yoon rawatina ci jamonoy élection présidentielle yi ñu jëm ngi gën a ay responsable am ndax waxuma la kenn gisatu ko sax waaye Karim Wade ndax jamono ji mu ngi duddam déet en tout cas li ne fi mu toll nii mu ngi bëgg ndax ci ji nga xamante ni a ngi yëngatu ñeel élection présidentielle yi ñu jëm ñoom waa PDS ñoo ngi ne tekk tekkaaral di xaar ay instruction benn leader leader boo xamante ni kenn tegu ko bët kenn gisu ko déggunu ko te yëngatuwul benn yoon te bu ñu sukkandikoo ci benn haut cadre nag libéral nee na amul benn responsable PDS boo xamante ni mën na la confirmeel ne Karim Wade mi candidat lay doon ci élection présidentielle yi di ñëw dèjà jotuñ ci benn instruction te képp ku wax ne Karim Wade moo la sant nga liggéeyal ko ndax dafay nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw waxoo dëgg moom haut cadre libéral bi di xam ne ci biir yéene bi ne li am ci ko nettali amuñu benn message di masaw waa Maroc boobu lañ gëj a dégg Karim Wade même coowal parrainage bi Karim Wade yeeyu ci yàbbiwu ci ba actuellement may wax ak yéen joxewul benn instruction ci biir parti bi pour ñu liggéey ci wàllu parrainage bi presque juróom-ñaari fan dongo des nañu tàmbale parrainage bi enquête yéen moom di laajte est dafa xar ñaar waaw wala déet ndax haut cadre libéral bi ñu dégg mu wax ci source a bokkut ak li ñu enquête yéen di nettali sax Karim Wade mu fas yéene koo teewee ba noppi nañu ñu accueillir ko dèjà balaa muy yegg sax Sénégal dina def benn étape ci Italie jaar France soo a teer si Ndakaaru Njaay te bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diop député maire nee na lu ñu Karim Wade santoon fi mu toll nii def nañ ko ba noppi te moo di ñu def renouvellement parti bi fédération yëpp noppi nañu fi mu toll nii seen liggéey mu des nag ñu jàpp datu congrès bi Karim Wade daal di yegg si ñu tabaat ko mu nekk ci bopp PDS ñu daal di doxal jëm 2024 léegi fa yéenekaay ne kii doxal kay te nekk ci biir prison bi moo di Ousmane Sonko mi nga xamante ni doole mu ngi gën di yokku yéenekaay bi ne waxuma la Sénégal sax waaye fukki parti politique yoo xamante ni ñoo ngi ci biir Afrique ñoo ngay soutenir Ousmane Sonko mi ba tëral benn kuréel tuddee ko Pastef Africa jàpp ne Pastef bu dee Sénégal tamit mënta dee ci biir Afrique dafay soogu judd sax nag ci biir Afrique yéenekaay bi ne kuréel gi ni mel nag ay doomi Afrique Pastef africain nag lii seen yitte mooy fexe ba turu Pastef moom di wëy ci àdduna bi dem nañ sax bay initier ab indicatif téléphonique boo xam ne ci réew yépp turu ba Pastef lay tàmbalee ñoom na ñoo ngiy sóobu ci benn campagne boo xam ne seen objectif moo dañuy libérer Ousmane Sonko ca na mu gën a gaawee joxaat ko ay àqam ak yelleefam ba mu mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw yéenekaay bi di lim nag réew yi nga xamante ni bokk nañ ci kuréel gi di mel ne am yoo xamante ni ñoo ngi ca Burkina Faso waa Comores ñoo ngi ca biir Congo ñoo ngi ca biir Côte d'Ivoire ñoo ngi ca biir Gabon ñoo ngi ca biir ñu ngi ca biir Mali ñu ngi ca biir ba ca diwaanu Niger yéenikaay bi di ñu ne fi mu toll lenn kese lañu gis mooy xeexal Ousmane Sonko ba mu mën a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw le regard ne Guy Marius Sagna kay mu ngi dëggal li li mu gëm ba gëm moo di Ousmane Sonko dana bokk ci élection présidentielle yi di ñëw amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C ñun plan bi ñu am mu ngi tudd Ousmane Sonko Guy Marius Sagna di xam ne ci biir yéenikaay bi ne république laa la wax Ousmane Sonko lay wuyoo fii ci Sénégal bés bu ñu demee ci élection présidentielle yii midi pile Ousmane Sonko gagné élection yi ci premier tour révélation yéene kaay moom desuwaat ci defante gi nekk ci diggante Yewwi Askan bi ak waa Taxawu Sénégal ne assemblée nationale fi mu tudd mu ngay riir ndax groupe parlementaire bu Yewwi Askan bi lanu namu mooy génnee fukki député yeeg ñeent yi nga ni Taxawu Sénégal am nañ ko ci bu taxawu Sénégal laa la wax teewu fa waxuma la yëgaluñ leen ko sax waaye fi mu toll nii dañ leen a sepp ci groupe parlementaire ba tegee leen na lee <laughs> ci politique mbokki continue leen di abonné ko bàyyi xel seen seen YouTube bii di Mourchid TV ndaxte kat gàmmu gaa ngi ñëw te bëgguñu dara rëcc ci leen te gën a bàyyi xel nag télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah